D'abord, euh, nous remercions le Tout-Puissant, prions et remercions également l'ensemble des euh, conseillers qui se sont déplacés pour venir massivement dans la discipline, mais également avec un engagement. Nous remercions donc euh, l'ensemble de ces conseillers qui sont venus répondre et nous réjouissons du, du, taux de participation, qui est quand même un taux de participation honorable. Nous tenons également à remercier l'ensemble des organisateurs, que ce soit l'administration territoriale, mais l'ensemble des personnes qui ont participé à la, au bon déroulement de cette élection, qui s'est donc, comme vous l'avez tous constaté, euh, fait dans d'excellentes conditions, dans la discipline, dans la sagesse Et ça, c'est vraiment à saluer. Et encore une fois, merci aussi bien à l'organisation que également à l'ensemble des conseillers qui se sont déplacés. Pour l'enseignement, c'est-à-dire que déjà, euh, certains pensaient peut-être qu'il y aurait eu une forte abstention, mais les euh, Benoît Bakayakar, dans son ensemble, s'est fortement mobilisé. C'est déjà un signal fort pour montrer qu'aujourd'hui, tout le Benoît Bakayakar est uni derrière le président de la République Macky Sall. Et c'est vraiment un signal que nous donnons à l'ensemble des protagonistes politiques au niveau de Thiès et du département de Thiès afin que ce type de, euh, d'activité, c'est-à-dire euh, les élections et les échanges prochaines, nous puissions revenir à victoire ancienne que nous avions largement l'habitude de faire au niveau de ce département. Non, ce n'est pas, pas une centaine. Si, parce que si on a, on a fait un peu le, le, le constat, que le nombre de personnes qui ne sont pas venues est, est, est infime. Je pense une, à peine une vingtaine. Et bon, on comprend que euh, avec la période, le, les certains ont déjà des activités qui sont peut-être en dehors du Sénégal ou à l'intérieur, qui les ont empêchés de venir. Mais quand même, très largement, les populations se sont, les conseillers se sont déplacés et ont montré leur engagement aux côtés du, de la liste de Beno Bokyakar. Tout d'abord, euh, ces honorables élus, nous, les, nous leur souhaitons et nous prions pour qu'ils puissent avoir euh, cinq années euh, de réussite, afin que tout ce que nous attendions et que le peuple sénégalais attend d'eux, ils puissent euh, y, a, y les réussir avec le bonheur. Et cela, je pense que c'est possible parce que ce sont des conseillers avérés, souvent ayant une bonne expérience Et je pense qu'ils pourront, au niveau du HCCT, représenter dignement le département de Thiès. Et vraiment, euh, pour les citer d'abord, nous avons euh, Alassane Doy, il y de Kayar, nous avons honorable député euh, Fatsen de Toubatoul et Ndembeng de Noto. Je pense que ce sont les trois qui sont en attendant que le président de la République puisse décider. Et je pense que ce sera l'occasion également d'avoir d'autres euh, conseillers et d'autres membres au niveau de, du, du, de département de Thiès. L'enjeu Le, majeur débat déjà, c'est que c'est une élection, élection et c'est une échéance républicaine. Et c'était important aujourd'hui que cela se fasse, bien que certains étaient dans une posture de, de boycotter. Et il fallait que, au moins que nous montrions que le bon Bokéakar est uni. et la, la large, en large majorité des conseillers se sont déplacés. Ce qui a été fait, ça dans la discrétion, ça avec sérieux et cela quand même est à saluer et nous remercions encore une fois l'ensemble des personnes qui se sont déplacées, en particulier les conseillers du département qui sont venus très tôt et ont montré leur engagement. sant sunu borom ba ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin di sant nag bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo yoroon organisation bi ci monsieur le préfet ak euh, collaborateur yi yëpp ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw nañ ko ci ba élection yi ñu def ko ci jekk ci teggin ci jekk ak teggin ba kenn amul lenn loo xam ne mën na ko ci euh, jàmbat wala leneen di sant tamit conseillers yi nga xam ne ils se sont déplacés parce que enjeu bi ga gënoon a mag tey moom mooy est-ce que nit ñi dinañ ñëw sant yàlla ba nit ñi déplacé wu nañu large majorité conseillers ñëw nañu am na sax ay ñenn ñoo xam ne bokkuñu ci benn bokk yaakaar ñëw nañu voté si loolu lépp pour wane nag kon vraiment loolu c'est une réussite di nag euh, wane ne léegi tey am na benn taxawaay bu bees boo xam ne benn bokk yaakaar taxawaat na ko pour ñoom ñëpp tey delloosiwaat bokk ndey bokk baay pour que échéance yi nga xam ne moo moo nekk sunu kanam ñu mun am ndam yi nga xam ne daan nañ ko amaat incha allah. ñu daal di leen ñaanal. parce que xam nañ ne ñi ñu fay ñi ñu fa jël ñëpp macha allah am nañu expérience maanaam yàgg nañu liggéey ci collectivité territoriale yi xam nañu ci li bare loo xamante ne su ñu demee foofu ca euh, penc boobu nga xamante ne ndaw réew mi la dinañu mën a défendre bu baax euh, li nga xamante ne moom moo leen fa teg mooy défendre euh, conseil euh, département de Thiès mais également wane xarañte boo xamante ne dinañ xam ne foofu fañ fay teg nekkuñu fa ci seen bopp mais ñi ngi fay nekkal tout le département de Thiès ñu leen di ñaanal ba ñu am ci ndam ndam boo xamante ne incha allah du nekk seen ndam ñoom kese mais ndamu Thiès yëpp lay doon ndax département de Thiès tey jii ñoom ñooy seen yore seen euh, kaddu te ñoom ñoo leen di taxaw foofu ñu jëm. waa xam nga nit moom loo gis ci àddina am na ñu bëgg ak ñu bañ. mais alhamdulilahi rabbil alamin xam nañ ne tey ñi ñi bëgg ñoo ëpp ñi bañ kon eh, ku dem ba liggéey ak ñoom di nga xamante ne am na lu bare loo xam ne dinañ ci yëngatu di joxe seen i xalaat di joyanti li nga xamante ne moom moo mooy li nga xam ne moo xawoon a yàqu tuuti ci acte trois de la décentralisation man mi nga xam ne maa ngi liggéey ci ministère gis naa ne régulièrement dinañ ñu interpeller waxtaan ak ñun jox ñu seen i xalaat loolu lépp lu am solo la parce que dëkk moom ay xalaat ñoo koy defar benn nit rek ak xalaatam mënut a dem moo tax tey ji euh, ñu leen di ñaanal loolu jéego yooyu nga xam ne def nañ ko ci juróomi at yi juróomi at yii di ñëw incha allah ñu def jéego yu ko ëpp. waaw xam naa nag président la république moo yore cëgal guyam waaye nag ñun am nañ ci yaakaar ndaxte ba élection yee passé joxoon nañu ñaar ah mi ne mënees na tey bi yoon tamit incha allah mu feddaliwaat ko. ba joxaat ci incha allah ñaar loolu la ñuy ñaan wala tax ko ëpp président de la république moo koy xam mais ñun tam am nañ ci yaakaar lool lool lool ndax importance su département de Thiès. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp ku si nekk turam ak santam di commencer di représenter di remercier monsieur le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ñu ngi koy remercier ci confiance bi mu am ci ñun ba choisir ñu ñu ngi koy remercier ñi ngi remercier itam élus yi ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañu votel suñu. ñi ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ñi ngi leen di remercier bu baax ah élection yi nag man damay gën a remercier la président Macky Sall parce que jóge assemblée ñëwaat fii ma ñëw expérience ma jëlee woon assemblée moom la ñuy delloo si waat fii rek dañ na alhamdulilah rabil alamin ak tam choix bi ñu def ci jigéen ñi ñu ngi koy remercier waat encore confiance bi am su ñun daal bu soobee yàlla duñ ko décevoir te duñu décevoir askan wi tam non ñun bokkuñu si ñu koy wax te gis nañu njariñam te dinañu firnde ne am na njariñ incha allah. waaw waaw neex lii ñu ñëw ñëpp ñëw en masse lii prouvé na lépp ñun benn le njabootu Macky Sall léegi fas yéene nañoo ànd nekk benn liggéey jem ca kanam fàtte nañu li passé yëpp léegi ci kanam daal li dëgmal si kanam daal ci la ñu jox bopp daal te fas yéene bokk ndey bokk bàyyi def benn dank ànd liggéey bu soobee yàlla.